àdduna waral njabootam nag daal di uh, fësal ab communiqué nag ne nañ seen njaal dinañu ko jot fi nga xamante rek moom mooy ca maison familiale maanaam ci njabootam bu ñu ko uh, di ko defal ab communiqué ñoom nag ne na di koy ñaanal bu baax uh, communiqué bi nu mel mu nga jugee ko ci njabootu sekk ba tey rek kii di Ndeye Fatou Diouf ñu gën koo xam ci turu jaaga nag ginnaaw bu mu génnee àdduna nit ki démb ci buñ ne nag feebar bu yàgg rek moom moo ko tëraloo lool ki nga xamante ne moom mooy yaay ci Wally Balago Seck nekkoon soxna su eh, moom nag daal di nay yóbbee réew mi rek naqar ak tristesse ginnaaw génn àdduna bi nga xamante ne rek daal dina koy def niki démb waral rek roi di mbalax bi di Youssou Ndour daal di fësal ab texte boo xamante ne rek bu daw yaram la di jébbal njaalam képp koo xamante ne rek fam sekk nga waaye nag la mu daal di xamle kii di jaaga nekk na nit koo xamante ne rek moom moo njëkk fës ci public nekk koo xamante ne rek ku jàppale boroom këram la waaye nag ku ko taxawu ci carrière musicale la ndax nag bëgg gi nga xamante xamante rek bëggoon na ko jëkkëram bi di ton Seck jamono ji nag la mu daal di xam xamle moom Youssou Ndour kii di Mama Diaga nag nekk na koo xamante ne rek référence la waaye nekk ku dal lool nekkoon moitié con sec nee na nag yal na ko yàlla yërëm te xaral ko aljana nee na jamono bu métti bi nag ak tristesse bi nga xamante ne rek da dinañ koy yeewoo ma ngay jébbal njaal njabootam rawatina nag kii di Wally Ballago Seck mi nga xamante ne rek mu ngi koy jébbal eh, njaalam bu baax di ñaan yàlla rek yërëm yaayam ji te xaral ko aljana la mu ci daal di xam ne rek mooy kii di Kiné Diouf Diagana nekkoon na koo xamante ne rek eh, ku baax la nekk koo xamante ne rek ku oyof ku laa biir waaye ku bëggoon jëkkëram ji di ton sec taxawoon na ko fu di kaddu kii Youssou Ndour jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen